waaw alhamdulilah ñu salaatu wasalaam ala rasulillah allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kafira wa subhanallahi bukratan wa asila eh, waaw ñetti at a ngi nii ñu fi tabaske yàlla moo ko dogal ndax eh, covid 19 bi nga xam ne moo fi moo fi jaar ba ujaa ci ñaari at yi weesu at mi dem na waaye quota bi dañ ko wàññi lool ba ku ci nekk wàññi nga na nga daan demee looloo ko waral Euh, ñu ñu jullewaat fi macha allah te euh, loolu la yàlla dogal su fekkee nag lu jëm ci wàllu jikko yi ah kay bu ñu jàngee tabaski rek ñëpp defar seen jikko ndax acteur principal bi nga xam ne moo nekk ci euh, tabaski mu ngi tuddoon Ibrahim déggal boromam yar njabootam gépp bañ déggal ko soxnaam Hajara doomam Ismail ñëpp déggal ko dem ba ci ndoxum zam-zam ci boppam sax day déggal jabaram loolu nag tabaski loolu rek lay jàngale si mooy yàlla daa santaan lii lu métti ci def ko li métti ci def ko bu résultat ñëwee indil la résultat yu baax su ko defee jikko yëpp daal di jàkk bu dul loolu nag ku ne da ngay dem ak sa bopp te bu ko ne dem ak sa bopp dara du jàkk daw yi li seen part mooy déggal seen wajur ni ni Ismaïla déggale wajuram xam nga am na ci ndaw yoo xam ne fi ne boo leen jëloon ne leen ma nangam képp ñu seet nuñ ciy def kii nag papaam néewu ko dama lay yóbbu barab sàngam néewu ko indil ma nangam daf ne ko dama lay rendi loolu la ko wax bu fekkee Ismaïla déggal na ba juróom ci dama lay rendi mu ne ayca bu ko xale boo ko xale royoon kenn ku ne loola sa waajur wax danga ko def te loolu sa waajur wax danga ko def loola may may xale barke moo koy may tuyaaba moo koy may jikko yu rafet déggal waajur rek jërëjëf alhamdulilah